jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd bokk ñun mbokk internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. jàngeen jëf mbokku internet yu 5M TV Sénégal mbégte ak bànneex la ñuy amaat di dellusiwaat di leen dégtal xibaar yi lee la ca gën a fës Alioune Tine moom mi xeex lu ñeel ak ak yelleefu doomu aadama mu ni kon lu yees li nga xam ne am na ci Sénat maanaam rek jële fa ñi nga xam ni ñoo fa nekkoon teg fa ñeneen loolee dogal la boo xam ne ci wàllu politique dong rek moo ko daal di ëmb ndax la ñu bëgg mooy Ousmane Sonko mi daal kon du bokk ci élection présidentielle yu 2024 yi lee njiitu réew mi rawatina kon njiitu Sénat Doudou Ndir Mile daal di jeexal kon mandaawam ay at a ngi nii waaye tey jile kon gis nañu nga xam ni rek ñoom ñoo fi jugee tey rek ak ñu jël ñeneen daal di leen fiy teg mu nekk ab dogal boo xam ni kon dana sax bokk ci lu jëm wàllu nag ab laaj yu ñuy samp jëm ci fiche de parrainage yi nga xam ni kon war nañ ko jox Ousmane Sonko te boobu léegi kon waxuñu si dara nanguwuñu euh, bile dogal nga xam ni jël nañ ko waaye jàpp nañu kon mbiru politique dong dong rek moo ko lal ay kaddu la moom ni mooy jëm rek ci jaxase bi nga xam ne kon dinañ ko jaxase mbir mi te loole jàpp nañ ni kon warut a a am benn yoon ndax la ñu soxla mooy élection bu jaar yoon bu amul rek benn lëñ ci lëñ ci waaye gis nañu kon njiitu réew mi moom intérim dong rek la def intérim dong rek lay xool ci réew mi la te réew mi itam la mu soxla mooy jàmm ak dal